ñoo ngi nuyu ñëpp tamit euh, xam ni ñun ñëpp dañu xawoon jaaxle moo taxoon ñu woote tey woote bi nag xam ni dañ waxoon ni mag suy fo daf ko war a fonk ba ko fekk doo ko fa mais gis nañ ni temps yi passé ni yëpp chaque journée bu ñu def ci au niveau nawetaani fii day am violence ñu xam ne loolu jëmul kër ñu ni nag dañ woo taxaw ñu waxtaan ak suñu njaboot parce que tamit ñun suñu nekkee ay njiit chaque fois violence di am waxuñu si dara day mel dañ koo cautionné moo taxoon ñun nanu woote woo suñu njaboot waxtaan ak ñoom ñu leen nawetaan kat dafa moom lu taxoon ñu organiser ko mais ñoo ngi faussé esprit bi te suñu bëggee mu continuer à l'instar des autres il va falloir que ñu revoir suñu comportement mooy ñu def nawetaan yoo xam ne dans la sportivité fair play et surtout discipline moo taxoon ñu woote parce que tamit danoo nekk foo xam ne Tivaouane la Tivaouane soo ko déggee Sénégal rek am na image bu mu lay jox ñun nag à travers les nawetaan dana war a rehausser boobu vision mais waruñu ko wàcce am na loo xam ne war nañ ko jombal suñu bopp moo taxoon ñu ne kat plus l'offense serait grand plus grande est l'offense donc Tivaouane su wootee war nañ def loo xam ne ku ñu gis dañuy naw mais waruñu yedd ñu waat suñu njaboot wax leen ñu ne lii foo ak ree la encadré suñuy xale la rek pour activité de vacances bu jeexee ku nekk dem jàngi donc jarul ñu yàq parce que ñun ñëpp benn lañu ñu leen di leen sport moo demee noonu da ngay gañe wala ñu gañe la mm-hmm. ñëpp bu ñu informé seen xale ni leen da ngeen wuti man ngeen am comme mën ngeen ñàkk lépp day am mm-hmm. mais soo gëmloo ñëpp ne na nga war a chaque fois soo ñàkkee rek moo indi beneen problème mm-hmm. moo taxoon ñu bëggoon bàyyi nit ñu bàyyi ci xel ni lii kat pour fo la dañuy fo pour suñu njaboot ñu bañ a dem dugg ci yeneen dérive donc ñoo ngi ñaan population Tivaouane bi yëpp ni leen kat li fi amoon ñun naqarloo nañ ko ba fi naqar yem donc am na loo xam ne nag lu suñu cër nanu dikk accompagner équipe bi way ree supporter ku gañe dem ku gañewul ñu xam ne tamit yàlla mooy joxe ndam moo la xaj mais nag anta di xeex di saaga di xuloo du cëru Tiwaawan mhm. war na dëkk bi moo tax ñu woote ñu lancer un appel daal président ASC yëpp les délégués de zone les supporters ñëpp sécurité bi ñëpp daal ñu gën a redoubler defoor pour ñu mën a def des nawetaan yoo xam ne day mucc ayib quoi moo taxoon ñu gënoon woote tey daal pour waxtaan suñu biir xam ne lii fi génn nag ñoo ngi jéggulu di masawu ñi dëkk ci wetu terrain bi parce que xam na ne chaque fois bu buñ dooree lacrymogène ci kër jàmbur lay dugg nit ñi dañu am problème mu noyyi nekkul li nu gënal am na ñoo xam ne sax dañuy liggéey dafa ay briques fii ñu koy toj nekkul li nu gënal ñoo ngi leen di masawu di leen jéggu ni leen nag suñu sañoon daal loolu du am te lépp lu nu mën dañ ci bay suñu kéem kattan ba loolu dootul am ñuy jéggul ñun daal bëgg nañ di continuer suñuy du damati benn violence ñu jiyee ko ci jàmm ak salaam ñu mën a continuer ku bi ñuy jël dañuy gis ne yenn pratiques yi ASC yi ça fait ni des match day retard trente minutes est-ce que loolu tamit bokk na ci li ngeen xam ne tey seen réunion bi bokk na ci discussion yi waaw tey waxtaan nañ ci parce que tamit soo gisee léegi on a parce que tamit le progrès on on pas mhm. soo xoolee nit kiy def lu baax tamit da koy copier léegi on a préféré convoquer les ASC presque une heure en avance mhm. pour ñu mën def benn réunion technique mhm. mën a régler tous les problèmes yi nga xam ni mën na causer benn retard avant match bi commencé su ko defee rek automatiquement su première rencontre bi jeexee dañuy aborder ci deuxième rencontre bi pour ñu mën a gagner en gain de temps mën a teel a pare ci stade tiire nañ ko ci dina a tax ñu rectifier yenn tiir yi mhm. loolu mooy wax am na ay textes yoo xam ne moom moo leen régir yu mhm. prévoir même s'il faut sanctionner mhm. est tamit côté boobu tamit amul légèreté si seen niveau pour que même bu dee ASC yi gën a mag ngeen sanctionner leen pour que mu mën a servir d'exemple aux autres waaw effectivement parce que soo xoolee si entame bi xawoon nañu xaw am un peu de subjectivité parce que tamit ñu on est régi par ñu wax ñu ne A égale A B égale B mais malheureusement gis nañ ci suñu côté tamit tamit danu jàppoon ni comme foo la agré ñun benn lañu ku nekk war nga am esprit de dépassement tax ñu xalaatoon ne jarul yëkkati yàpp di dóor boo communiqué dina dem mhm. mais nag devant l'impossible nul n'est tenu mhm. bi ñu gisee lii mu xew gis nañ nag il va être à cheval sur les règles sur les textes moo tax désormais on s'est dit que ni ku de texte yi di nga am conséquences yoo xam ne même bu fekkee sanction négative la bi mu tollool li nga def rek loolu moo la ciy fekk en quelque sorte quoi merci beaucoup ok je vous waaw donc sanction yi mën a dem nga ñàkk match sax mhm. nga def benn kii ñu ñàkk match mën na la amaan mu ne la amende mu jóge cent mille ba cinq cent mille six cent ça dépend toujours ci li nga def rek à hauteur de bêtises yi nga def mhm. mais mën nga ñàkk match mooy nga xam ni moo ci nekk et ñu suspendre équipe bi mhm. parce que tamit si bu amee ay récidivistes dañuy suspendre équipe bi mhm. donc loolu moo tax ñu bëgg ñëpp bàyyi ci xel daal xam ni buñ sañoon nag ñëpp ay bokk duñu privé kenn mais nag ci kaw ngeen respecté li nga xam ni moo ñu tënk moo ñu yiir muy les règles. maa ngi sant di jégalu.